amee internet de vipeoples.net di am contentement comme ni ma ko tàmm di waxee saay su ne di leen dalal seen biir set bi ngeen taamu di VIP people ak VIP info point net tey nag comme niñ ko tàmm defee saay su ne chaque jour ñu leen di jox seeni info du jour muy di seeni récap euh, du jour ñu war a waxtaanee nag ci thème yu bari bi ci njëkk nag ñu ñëw wax ci benn kawteef ndax nee naa leen saay su ne ñu ngi wax kawteef waaye heure bu ñu xëyee rek ñuy dégg kawteef bu ba gën a garaaw euh, bosam bii nag mu nga xewee fële ca Mbuur benn professeur éducatif moom moo doon tëddee ay élèves am élèves yi nag nekkul ñu jigéen ñi dong la doon tëddee góor ñi jigéen ñi ñëpp la boole woon di leen di tëddee li ni mel nag kamu nga xewee fële ci Mbuur kenn ci élève yi moo daal di rëcc ñëw ci presse bi daal di ko fi avoué muy lu doy waar loo xam ne yaakaar naa ne nekk na njàqare foofu nga xam ne mooy diwaanu waa Mbuur ak école boobu nga xam ne foofu la professeur boobu nekk. ba tey ñu ñëwaat ci beneen kawteef boo xam ne moom it doy na waar te yaakaar naa ne mën nañ ne c'est pas la première fois ñu koy dégg donc jot na sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax moom it tamit mu nga xewee fële ca diwaanu Mbour ci moom benn femme moo ñëw mu ne dafa am benn sëriñ bu ko bëggee woon tëddee donc li ni mel nee na bi mu demee seeti sëriñ bi mu daal di ko seetal ba noppi wax ko li nekk ci moom daf ko daal di ne mu daal di summeeku pour moom mu ñëw sangal ko boppam waaye lépp ci biir néegam boobu la yore benn chambre ak salle de bain boo xam ne foofu la lay bëgg sanguwee euh, daar daar te même boo nee yoroo sax dala naan mën nga ñëw ñu sang la après nga daal di euh, daal di joxe li nga xam ne mooy li ngeen waxante mu nekk phénomène boo xam ne jamono ji mu ngi lëmbe réew mii yaakaar naa ne sama mbokk jigéen yi jot na nag ñu yeewu ñi sëriñ si nax nee naa la maama nii ñu ngi bëgg a bëri ci miim réew te ñu ci ëpp ay kawteef rek la ñuy faral di def bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëwaat ci nouvelle bu neexee nouvelle bi nag mu ngi neexee ci ndaanaan bu mag boobu di artiste euh, moo it boo xam ne ràññee nañ ko lool ci mim réew muy Souleymane Faye Souleymane Faye nag dañ ko invité woon fële ci 2 yi gannaaw ba mu defee plateau confrontation dal di defaat plateau nous patron bi nga xamné mom moy mooy deux 2STV di monsieur elage Hadji momit dafa woté en direct ci émission bobu dal di féliciter chroniqueur yi ba nopi dal di koné mayna ko ñaari billet avion mom ak sëram waye tamit yamul ci billet avion yoy rek nax gannaaw bim ko ko joxé ba paré ñaanal ko féliciter ko waye tamit dal dina ko dik émission fofu ci télé bu mag boobu di 2S TV boo xam ne dañ koy faral di amal tous les mois donc mu nekk loo xam ne artiste bu mag bi kontaan lu na ko rafetlu na ko Sénégal yëpp rafetlu ko ndax nee naa la Souleymane Faye Souleymane ñëpp la. Ah, gannaaw bi ñu jógee ci nouvelle boobu nga xam ne moom la El Hadj Ndiaye borom 2STV daal di def ñu ñëwaat ci benn nouvelle bu neex benn carnet ci suñuy célébrité kii nag Fama Thioune la ñuy wax ndax moom it bu yàggul dara semaine yi ñu génn la daal di ah, amaat njëntewaat deuxième doomam bu góor boobu nga xam ne mu ko am ak jëkkëram jooju di frère ci artiste bu mag boobu di. Coumba sec. Mam nak ci bir avant muy am dom ba koy célébrer te njënte loolu nañu ne il y a quelques mois mu daldi ben ci page Instagram ne désormais appelez-moi mademoiselle woné ni mom dafa daldi di divorcer ak jëkërëm jooju nga xamné ne la doon seyel way tamit biñu ñu ci loolu quelques mois ci la am dom bi doom mu ngi gërëm dom ji félicité euh, ndax fi mu ñëwee la xëy na ndax olof Njaay daan na wax naan ne say bu dee da nga fase sa jabar tombel mu nekk en état bu ci doom bu góor juddee delluwaat ngeen maanaam xale boobu dafa indiwaat bonheur ci viwam indiwaat bànneex ci viwam ba tax mu koy tagg di ko tagg ba Sénégal yépp daal di ko sentir ci wax ne dafay wax doomam jooju ñëw ne ko merci beaucoup ndax moment bi mu ñëwee nekk na moment bu neex ci moom waaye tamit nekk na moment boo xam ne soxla woon na ko lool ci doomam jooju ñu koy souhaité waat nag ci ménage boobu nga xam ne dugaat na ci reménage di ñaanal gudd fan njabootam googu. fraîchement marié yaay Fatou Diagne l'ex de Serigne Mboup et Ahmed Khalifa Niass moom it jamono ji mu ngi daal di def buzz ci internet bi ndax yaay Fatou Diagne dafa gën a dellu xale gën a rajeunir waaye tamit gën a jongoma tout le temps ñu ngi koy faral di gis muy gën a affiché ay photom ci anam yoo xam ne ñëpp dañ koy rafetlu ndax nee naa la nekk na grande dame jongo mën waaye tamit ba mu marié ba léegi mu ngi marqué empreinte am ci biir euh, internet ñu ñëwaat ci benn kawteef euh, boo xam ne moom it jamono ji mu ngi lëmbe internet bi waaye tamit mu nekk lu doy waar ndax euh, mu ngi dal benn xale bu jigéen bu ñuy wax Dibor Dibor nag euh, lu ko dal mooy que ni dafa am benn waaye bu ko ëmbal ba pare daal di ko bañ waaye li gën a yéem nit ñi gën a compliqué li mbir mi nee na waay ji mu ngi liggéeyee fële ca TFM ba pare kilifa la ci réew mi mu nekk lu doy waar ndax yaakaar naa ne jamono ji suñuy kilifa yi war nañu war a mën a moytu yenn accusation yi rawatina li ci jëm ci wàllum euh, grossesse wala ëmbal xale bu jigéen boo xam ne danga ko bañ na moom nag nee na xale bu góor bi moom rek la xam ndax nee na yàgg nañu ñoom ñaar te daf ko doon wan ngor ak dignité looloo tax ñu àndoon ci doon ko ci nekkal saay su ne ba yàlla dal di def lii mu amu mu daal di am waaye depuis ba mu ko amee ba léegi su wooyee ba mu ko annoncé xale bu góor bi ba tey su ko wooyee du ko jël bu ko messager du ko faale waay tamit ba jusqu'à présent nanguwul nangu paternité boobu nga xam ni moom la def xale bu jigéen bi nag moo génn ci internet bi di ko wax di ñaan ndimbal ndax nee na mu ngi ëmb ci mu ngi toll ci huit mois te actuellement dooleem demeetul noonu mënatul liggéey ndax moment yi mu toll dafa délicat di ñaan yàlla rek ñu dimbali ko waay tamit di ñaan copain wam boobu nga xam ne moom moo ko ëmbal nekk kilifa foofu ca euh, Futurs Médias di TFM mu daal di ko ñëw reconnaître doomam na xamul kenn ku dul moom Serigne Modou Kara fête son anniversaire sous la pluie Mon école a xam tamit def na buzz ci internet bi Serigne Modou Kara gannaaw bi anniversaire am nekkee samedi mu daldi taw taw bu bari way tamit mu tombel ñaari rak ku ku mak kooku di euh, Serigne Touba ñukoy faral di euh, fêter ça. chaque année fele ci Ndar way tamit ren jotuñu ko fêter. nak Covid 19 bi mais terewul mom Serigne. Modou Kara génn na di ko féete di féetewaale anniversaire am ci taw bi ndax nee na kooku di jëmm ju mag jooju di Bamba dañ ko war di sargal saay su ne ndax bañ koy ba muy jógee Sénégal ñu koy yóbbu fële ca Gabon mu daal di dund lu metti ci taw lañ la nekkoon waaye tamit fañ ko dugaloon da doon seen ba ba set muy loo xam ne Sénégal yëpp dañoo rafetlu loolu nga xam ne Serigne Modou Kara daal dina ko def muy lu rafetlu lu yéeme taxaw ci taw bi di màggal kooku Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ñu ñëw ba tey ci li nga xam ne moom mooy affaire Bati Plus ndax jamono jii tamit mu ngi ñëwaat di gën a def buzz ñu ci am ci information yi nga xam ne moom la ñu jot jot tey ci suba muy que le fiancé de Rachel Islay Lati momit Dal daal dinañ ko démasqué fële ci euh, tribunal de Dakar ndax momit gannaaw ba problème bi ñëwé la mu waxoon ci kooku di euh, copine am bobu di Rachel découvrir nañ né ndekete dara du ci dëgg lépp ay sos la woon ay fen la woon mu nekk lo xamné doyna war way tamit euh, gën nañ ci génn ay source yu gënal lèr ci biir loolu mu ngi